mbokk yi dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci mi nga xamante ni jamono ji ni taxaw na temm ngir dal di quitté FC Barcelone ginnaaw bi nga xamante ni rek Bayern de Munich door na leen huit zéro ci quart de finale Ligue des champions bi nu génn Lionel Messi nag mi nga xamante ni jël na juróom benn yoon Ballon door teg ci jël trophée bu nekk foofe ca FC Barcelone jamono ji nag moo taxaw temm bëgg a changer club waaye nag bile décision neexul ki nga xamante ni moo di xaritam bam nekkandoo woon foofe te FC Barcelone di Camerounais bi di Samuel Eto'o ba tax nag ki fi nekkoon euh, attaquant bu Barcelone ci jamonoy 2004 ba 2009 di Samuel Eto'o euh, nas na ay jéego ngir daal di argentin bi mu dal di toog foofee ca FC Barcelone ndax dem na ba xam la ni ni Messi mooy Barça te Barça mooy Messi doomu Cameroun bi nag nekkoon fi ancien attaquant bu Inter de Milan jugul benn yoon ci wane cofel gi dox ci digganteem ak Messi ba tax mu ngi dox kémtulaay kattanam ngir Messi daal di resté ci club de këram bi nga xamante ni moo ko formé di FC Barcelone Samuel Eto'o nag nee na dafa jàppee Messi comme doomam bu mu jur ba tax nag bu Messi amee lu ko metti moom it day am lu ko metti beneen mbir boo xamante ni doomu Cameroun bi xamle na ko nee na kii di Lionel Messi bu demee ba bëgg a quitter FC Barcelone dirigeant yi dañoo war a def seen kémtulaay kattan ba daal di fexe nu mu toogee beneen mbir boo xamante ni Samuel Eto'o xamle na ko nag du club absence am joueur bu mel ni Lionel Messi ba tax nag dañ ko war a gën a fonk bu baax di dox ci li ko neex yile kàddu nag Samuel Eto'o mi ngi ko yëkkati ginnaaw rek bi nga xamante ni Barcelone Bayern Munich door na ko 8-0 maanaam daf ko humilier humiliation bi nag daal di jur ay trouble yu bëri ci biir club bi di FC li lile nag di nekk beneen année boo xamante ni Barça daf koy def année blanche maanaam dina toog saison bu lëmm boo xamante ni du jël बिल्डर है